bonsoir salaamaaleykum mbokki xarit yi seetaan télévision Futur Média yéen a ngi ci seen émission Lamb Académie mu bokk ci rénovation yi nga xam ne seetu askan bi daf ko andi boo leen seetloo semaine dernière Boubacar Diallo amoon loon na fi plateau bu am solo ngir lancer émission bi mu àndoon ci nag ak ay experts yu mel ni Lamine Samba Moustapha Guèye ngay Diagne Père Gaston ak tamit Thierno Ka bu CNG ñu partagé nag ak ñun seen xam-xam ci lii TFM bëgg a boole muy lamb ak académie lamb nag xam ngeen ni biir Sénégal kenn dootu ko fi laajte DJ promoteurs yi chaque semaine dañuy tëgg ay combat ci biir arène bi et puis euh, à part grec yi ñun rek waa Sénégal ñoo fi cosaanoo lamb académie nag bu ñu ko waxee suñu xel dafay dem ci université wala boog école kon nag lamb ak académie bu ñu ko boolee mooy école boo xamante ne dañ fay jàngal mbër yi bëree jàngal leen bàkku jàngal leen takk ngemb jàngal leen aussi lire parce que tamit il faut ñu mën a signer seen bopp seen ay contrat te comme école yu baax yëpp nag du ñëpp ñoo fa mun a dugg ba tax na TFM dafa dugg biir Sénégal yëpp xool ay écuries yu bëri jëlee fa ñi nga xam ne ñoo fa gën a xarañ sélection boobu nag dañu ko commencé Dakar ci école de lutte les Tigres bu mbay Guèye de Fass donc ñu dem xool sélection bi ñëwaat. mbokk yi salaamaaleykum mbokk yi digga bor la ni ñu leen ko waxee woon lamba académie door na comme ni ñu leen ko waxee woon indiwaat une innovation ci lamb ji mooy lan dem ci gox yi ak goxaat yi dem ci région yi dem ci ruq yëpp génne xale yi jëlaat ay xale yoo xam ne yii dañu leen di formé waat ci lamb xale yooyu nag dañu war a nekk ci écurie mbaa ñu nekk ci école de lut su ko defee ñu encadré leen à partir de fi ñuy jóge ñëw nag ci lamb académie fekk fa ay kàngam naka nga ci bokkee mooy critère de sélection yi mooy at bi 18 ans jàpp 21 ans maanaam fukki at ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki ak benn pour nga bokk ci am taay bu baax it daf ci am solo euh, poids mooy poids bi maanaam euh, sa sa dayoo nan nga toll ak tamit sa style daf ci am solo ak ni ngay waxee sa communication daf ci am solo loolu yëpp critères yooyu yëpp dinañ ko jéem a xool ci mbër bi pour mu mën a bokk ci lamba académie mbokk yi tey nag mooy génn bu njëkk bi ñu dem seeti ki nga xam ne le premier tigre de Fass Mbaye mu wax ñu nag yan critère nga xam ne moom la jël ci xale yi nga xam moom la ñuy présenté. waaw Diagne Diagne Diagne Diagne Diagne Diagne maa ngi ko Zane alhamdulilah Diagne. jërëjëf jaajëf tubaarkala Diagne alhamdulilah ñu sant bu baax tubaarkala alhamdulilah Diagne Diagne. bien. Ah, qui m'aime a 19 ans, il sélectionné le BOC. C'est pour cela que je vais vous le présenter. Moi, le premier sélectionné. le premier sélectionné. Ah, ah. dama koy jël si leer laa leen wax voilà yow euh, nu tudd. man Mamadou laa tudd. Euh, am ñaata at. 19 ans. Euh, yow foo juddoo foo dëkk. man Fass Mbao laa juddoo Fass Mbao laa dëkk. waaw. nekk école de lune Mbaye Guèye. Mhm. waaw père dama yàgg a rêvé si làmb académique. waaw ah lu tax. parce que dafa nekk loo xamante ne nii day lancé mbër. Hmm. te dem te bëgg naa si tamit réussir quoi. réussir yàgg naa si bëgg a bokk nag. te père bëgg naa gars yi xaar ma. mu ah. bàyyi ma xel quoi. wax làmb académique dama ko bëgg a jël gars yi xaar leen ma faire lii lu ma yàgg a xalaat la quoi dama ko bëgg a jël incha allah. mais El teel teel na commencé teel na lancé wu de. Ah, teel na signalé wu. teel na wane boppam. waaw mais am naa yaakaar ci moom. am nga yaakaar ci moom parce que sama kanam lu juddoo bàyyam jox ma ko Cheikh Mbaye ma ko jox. dama kii naa la ko àddina àllaaxira donc man sama sama yëpp laa ci def daal pour mu réussir man dama bëgg a jaar si làmb académie ma fëllu ko ab dugg si arène bi làmb académie si laa bëgg a jaaree dugg si arène bi incha allah à waaw mais El mbay Mbaye euh, ginnaaw bi ñu kiiwee première sélection bi lan moo des. léegi deux deuxième sélection moo des Daoud Seye moo nekk fii ci kër gi fii. ñu àgg ci kër gi ñu xool ko incha allah. am maa ngi ñëw dal seen kaw. te am bi nga am. waaw kii mooy deuxième sélection bi Daouda Seye mooy sama doom la moom tamit Fass Mbao la juddoo fi la yaroo il a 18 ans donc xam nga ne xale la. on a pris que des ay 18 ans ans yooyu jël 18 ans 20 ay xale lañ jël donc kii nag si sama yaakaar ci kii ëpp sax ci ñeneen ñi. Euh, Jibi euh, yow Lamba Académie noo ko gisee. Lamba Académie nag moom ku ko ku ko créé ku am xam-xam la quoi. waaw ku ko keree comme du nit quoi ndax ndax lii mu def nii nii nii foogoon naa kenn kenn du kenn du ko mën quoi man nag fii laa bëgg a jaaree àdduna xam lépp waaw fii laa jaaree xam lépp ñëw nag dal seen kaw yéen nii nii dama seedaan maa ngi ñëw dal seen kaw maa ngi am 18 ans. maa leen gën a féete xale lu métti laa leen def nag waaw. billaahi lu métti xam nga ne Sénégal yëpp dañuy sélectionné xale yi. ñoom ñëpp ñoom ñëpp man dama gëm sama bopp père billaahi dama gëm sama bopp. loolu la ñuy wax ñoom ñëpp laax ñoom ñëpp. ñoom ñoom nii di ma di jàkkaarloo man di ma xool su ma leen jàppee yéen ñii ñëpp lu métti laa leen di def. waaw mais El Hadj dégg nga nee na day dal ci kaw gars yi de. gëm naa li mu wax parce que sama père daaw di la tudd kon gëm naa ko. gëm naa li mu wax bu baax a baax parce que xale la xale moom mooy mooy ma fàcc mag ñi te boo amee 18 ans nag man bi amee 18 ans dama foogoon maa mën ñëpp kon moom loolu laa gis si moom incha allah. mais kon euh, à bientôt ok jaajëf. voilà El Hadj léegi lan moo des. Euh, Alioune Diop moo des mooy troisième euh, kii bi ñu ngi kër dem Satik incha allah ok. baax les tigres fas. waaw mooy Alioune Diop mooy troisième sélection bi am nañu ci am yaakaar trop parce que lui aussi il a 18 ans xale bu ndaw la xale bu ndaw la xale bu ndaw ndaw juddoogul ñu rappelé les jeunes les plus jeunes lañ jël. indi leen ci ay euh, ci noonu euh, Alioune yow euh, ñaataat nga am bon lamb académie bi noo ko gise waaw man la Alaaji Diop 18 ans laa am lamb académie. xam nga yàgg naa kaa rêvé bëgg ko bëre mais instant bi père sax moom ma ko doon wax gëmeewu ma ko naa ñëw nag xam nga bëre xam nga dafee fa sama carrière waaw bëgg naa sama carrière jaar fa te maa ngi ñëw gars yi maa ngi ñëw xam nga dal seen kaw incha allah. Ah, mais affaire bi yow da nga yaakaar ne day yombe noonu. non ah dañuy dem rek xool mais ñun moom bu ñuy dem rek na yomb day yomb. bu ñu dem day yomb trop waaw nañ xool nag lu ñu lu ñu fee fekk mais yàlla doon lu ñu gënal. Mm-hmm. waaw looy wax ngi ñëw maa ngi ñëw dal seen kaw. waaye gis ngeen waa Dakar li ñu bëgg def nag ñëw dal ci kaw yeneen mbër yëpp yi nar a nekk ci biir lamb académie ndax ñoom fas la ñu jóge te waa Fass yàgg nañ leen dégg ci lamb ji mais nag bu ñu fàttali séeréer yu mel ni Yékini bu ñu nekkee xale lamb la ñuy fawee ba tax nag Ngagne jàng dafa dem ba Palmarin fekk fa Babou Babou nekkoon euh, benn champion d'Afrique de lutte donc mu sélectionné cinq ci ay poulain wam ñu nar a représenté séeréer yi ci biir lamb académie yi bii combat ñu jërëjëf mbokk yi ginnaaw état bu euh, Fass Mbao ak euh, les Tigres ci supervision Mbaye Guèye euh, xam nga bi ñu jëlee nga xam ne génn bu njëkk bi fa ko def mbokk yi ñu ngi suñu ñaareelu génn dugg nag ci biir dëkk bi comme ni ñu leen ko waxee jëm ci làmb académie ginnaaw bi ñu jógee Ndakaaru nag jëm fi nga xam ne dëkk bi nga xam ne mooy Diofior Fimela euh, Ndiosmone jaar foofu fépp jaar Jilaas dugg nag yoonu Samba Dia bi war a fan Palmarin eh Babou. Ladi Ngagne. maa ngi lay nuyu waay. sant di la siyaare sant nuyu naa la. maa ngi fi naka dëkk bi. dëkk baa ngi kon defe naa dañuy dem xooli gars yi. ci biir waaw xool dem. waaw xool dem xooli champion yi. mooy kan. mooy Ousmane Seck. Ousmane. waaw oh. ah, mais yow euh, présenté wul yaay kan. man maay Ousmane Seck. waaw dëkk Parmarin. dama ñëw pour bokk ci lamb ak demi. jël tournoi bi. looy wax gars yi. ah gars yi nañ ma seetaan nañ ma xaar maa ngi ñëw. yaa ngi ñëw. oui waaw mais Babou kii wóolu na boppam ah. wóolu na boppam parce que liggéey na. te champion bu liggéey noonu lay comporté. waaw. mais wóolu nga ko bu baax a baax. bu baax parce que moom laa njëkk a sélectionné. moom nga njëkk a sélectionné. waaw ok euh, mais loolu euh, boo koy wax sa mbokk séeréer lan nga leen di wax. wala séeréer fa dacc mo am may gara boo foog na tournoi bi lamb ak demi. gis hmm? dina palmarin foofu. fii daal mooy palmarin. mais de euh, euh, kii euh, Babou nan nga liggéey xale yi. xale yi dama leen yor di leen entraîné di bëre ñu may topp. Mhm. bu ñu màgg ñuy entraînement chaque jour may kontaan ak ñoom bu ñu dem làmb dañuy ñëw fi tàggu. ma ne mhm. leen dem leen bu ngeen demee da ngeen am bu ñu demee indi. indi waaw ok. loolu moo waaw mais kon maa ngi lay félicité di la wax à bientôt. à bientôt merci ok waaw. kon booy bi fu ñu jëm léegi. waaw ñu dem seeti. am na beneen booy deuxième sélection bi deuxième sélection bi. mais Babou kii mooy kan. kii mooy Yacine Seck. Yacine. waaw def. maa ngi ça va mu bàyyi la nga présenté wu. man la Yacine Xama Diouf dëkk Palmarin Ngallu nekk champion loolu moo tax ma bëgg a ñëw si lamb académie bi. ma maa ngi ñëw. Babou kii fu mu teg loolu. man la. te nekk champion. te xale bu ndaw la. mooy deuxième sélection. mooy deuxième bi moom moo gën a néewlee at. moo gën a tuuti ci sélection bi. mais foo teg li mu wax. parce que seetaan naa ko entraîné naa ko day bëgg fii. Mhm. de gagner. Mhm. loolu moo tax ñu sélectionné ko. moo tax nga sélectionné ko. waaw mais loolu euh, lan ban appel ngay def sa mbokk yi. li Yacine Xama Diouf. waaw. <coughs> wogole mi sim naanu. boobu mhm. ndamtaan mi jom ne mi ne académie bi di di wa di waynu gagné. Mhm. voilà. a kon à bientôt. mais fan lañu jëm léegi. dem seeti Mamadou Faye Mamadou Seck. mooy troisième sélection bi waaw. ok merci. à bientôt. Eh, Babou kii mooy kan. kii mooy Mamadou Seck. Eh, Mamadou ça va. ça va moo bàyyi la nga présenté wu. waaw man la Mamadou Seck maa ngi dëkk Palmarin Sam-Sam. waaw man nag champion bu mag laa. <laughs> waaye bëgg naa ko génne. ci lamb académique bi. waaw mais eh, Babou kii li mu wax fu mu ko teg. champion la parce que ñaari magam sampion la. seen ah. kër moom mooy ñetteel ba. mooy ñetteel bi. loolu moo tax mu tëkk foofu. mooy mooy troisième sélectionné. ok mais loolu boo koy wax sa mbokk ci séeréer loo leen ko loo ban appel ngay def ah ni Modou Seck sa champion rewum to ɓuwanmo rena ni mhm. fii fan la fii mooy Palmarin Sam Sam mhm. waaw mi refu Mamadou Seck gen Joala mhm. i ni jomni académique fe fo'u xowum i ɓuwaamo lalit maana i njom Euh, kon euh, mais kii waxam bi mbaa <laughs> wóolu na boppam. ah <laughs> moom du ma wax ne moom laa gën a wóolu sax mais sélection bi boog seetee mhm. booyam moo gën a set. ok waaw mais maa ngi la fekk léegi ci mbaal yi yow euh, da nga amaale métier. waaw luy sa métier. man pêcheur la. ah nga. waaw ah moo tax yaa ngi ci mbaal yi. waaw maa ngi ci mbaal yi. waaw maa ngi ci lamb bi. mais maa ngi lay jox rendez-vous à bientôt. waaw à bientôt jërëjëf ma bàyyi la nga dellu ci liggéey bi. merci jërëjëf. merci euh, fan la ñu jëmaat. ñu dem ci quatrième sélection bi. moom la ñu jëm nii jëli ko. waaw waaw. Pascal maa ngi fi ça va bien. ça va nekk mbir yi ma bàyyi la nga présenté wu. man la Pascal Ndiaye. maa ngi dëkk Palmarin. tournoi académie moo ma tax a jóg. Hmm? gars yi xaar leen ma maa ngi ñëw. Hmm? dal ah seen kaw. kii li mu wax fu moo teg. champion la. ah mais naka la champion ko ku ñëw rek champion la. parce moo gën dëkk Ngunumaan benn village bi Ngunumaan. Ngunumaan nga ko jël moom tax ñu jël ko sélectionné ko. boole kooku waa Palmarin. mooy quatrième sélection bi mooy quatrième sélection bi. ok moom mais njool am njool mbaa mbaa mbërum tànk la. Hmm? njool la day song day sol naat tànk yi moom macha allah. Hmm? wóolu nga ko daal. wóolu naa ko ah parce que moo tax ma. seen dëkk nu mu toll moom kese mu gën foofu. ok waaw mais loolu boo koy booy wax sa mbokk séeréer ban appel nga leen di wax. o fogole séeréer mi Pascal Waly Ndiayo. Hmm. gen meke juwaala tournoi académie nak taamu baf hmm. mais gara took nun nak cungyamo to nu ndamtam merci hmm. waaw mais sa waay lu leer la tëdd nga soo ko nu mu toll te xale la ah mais xale la xale la loolu moo tax te lamb xale koy def xale koy def waaw te na gabari te yaakaar naa champion lay nag parce que xoolal taay mais ok waaw ok naa fan yi waaw ok ma bàyyi la nga dellu ci bagage yi ok fa la ñuy léegi waaw ci cinquième bi la dem cinquième bi waaw ok d'accord naka la Michel Michel Diène. waaw ça bien. sant yàlla ma bàyyi la nga présenté wu. salaamaaleykum maa ngi ñëpp man la Michel Diène dëkk fii Palmarin Lamb académie moo ma tax a jóg te dama ko bëgg a jël incha allah. mais Babou kii li mu wax fu mu ko teg. nekk champion nekk champion seen dëkk mu jóge foofu ñu sélectionné ko. ban dëkk la dëkk fii. Ngounouane la dëkk Ngounouane. waaw ok boolu nga ko ci boolu nga ne kii c'est un champion. bu baax parce que fàttaliku ci ginnaaw ma saa dem seen ma ak sama copain ma ne ko kii fu mu dëkk mu a ma fi la ma ne ko kii nekk champion. te yaakaar nga ne fii mu jëm ñeme na ko. ñeme ko te wóolu naa ko. te mais looy sa mbokku séeréer yi. fogole séeréer mais simnaanu na fop nu ngeɗanaam ndamtaam o ɓii nuun o ndaan nuun o ndokoor nuun michel a gen meeke juwaala njom neeke te reta te ref mbër yi nag ku ci nekk yaa ngi bëgg a ñëw dal sa kaw morom mais nag bu ñu fàtte ne lamb ji bu ñu bëggee mu avancer il faut jàmm am ci supporters yeeg lutteurs yëpp jël violence tegee ko nale léegi nag ngir jàmm am ci biir lamb ji seetu askan wi dafa créer benn dessin animé 3D boo xamante ne ñu ngi ko tuddee récit du lutteur récit nag dañ ciy joxe ay leçons de civisme ci biir lamb ji ak yeneen domaines yëpp lépp nag ci kaw humour lañ koy def résultat bu gaaw lay nekk lu weesu ñetti minute waawaw xale bi si ngënd na ko yenn ba ci kaw teg ko ci suuf ba yëg ci kawam ne ko du ma morom maa la wax li Les propos de cette voyante ont donné beaucoup d'espoir à l'écurie Taishingen, d'une part. D'autre part, c'est la panique, le désespoir qui sévit dans le camp des persévérants, mais la star des parcelles assainies garde son sang-froid, il n'a pas encore dit son dernier mot. waaye yow man dama ñëw toog ci télé bi rek yem dégg ndaw si naan ma xaw ma la ngay daan gëmeewu moo ko sax waaye fi mu ne nii dama kontaan ba <laughs> mais fii mais félicitation waaye merci merci merci merci. mu muy jaar ba daan ko. i ñaan bay bëgg a ndaw si waxul woon lii rus naa la lool nag gis nga kurfañ bi bu ñaaree ma bàyyi waa waa waa fant shingani ñu ngi ñu ngi ñëw fii waaye baax na bu ñu ñëwee duñ ma fi fekk ndax dinaa di gisow ba kenn ma xam ne te sama riis bi tox na de xamoon naa ko nii nit ki li mu gëm ci nga koy nax seen waa ji moo ko def ni ko yaay daan mu daldi naagu naagu ba nu daan ko nag ah affaire la lii leçon la day wone ni seul le travail paye nit ku ne war ngaa xam li nga bëgg di koy def sa taxawaay liggéey nag ndax mu réalisé wu champion yii Balla day bëre ba karaw gi di bëri Modou Lo dafa xarañ ci li muy def Manga 2 Moustapha Gueye Tyson Yékini ak ñeneen ak ñeneen dañoo liggéey ba doon ay champion jug leen gaaw ñu tàggat sunu yaram ci tefes bii ndax moo ko yor de voilà bu ñu fàttali nag seul le travail paye wax tuuti job lu bëri la ñuy conseillé waa Lamb Académie ñu nag dañuy continuer suñu recrutement toujours biir Thiadiaye ñu fekk fa beneen champion d'Afrique de lutte bu tudd Ousmane Sarr moom tam mu ànd ak Ngagne Diagne recruter cinq personnes yi nga xamante ne moom la bëgg ñu ñëw représenter waa Thiadiaye fii ci Lamb Académie jërëjëf mbokku téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko waxee woon Lamba Académie ginnaaw étape bi nga xam ne def nañ ko palmarin mbokk yi gis ngeen nag ñu ngi ci ñetteelu étape bi fan la ñu indi fii ci caajaay fa la fa fas yéene dugg nag xool yan ndaw lañ fi tànn ñu mën a bokk ci Lamba Académie ça bien naka dëkk bi en forme taw bee ñu xaw a jàpp nag waaw ñu xaw a yàgg ci yoon bi euh, naka booy yi euh, booy mbër yi waaw ñëpp a ngi mën euh, moo yi nga jot a sélectionné ok ci biir dëkk bi bi ok xaar ñu dem seeti leen ok yaay nu mu demee Mbaye Sarr Mbaye Sarr waaw ça va bien mooy Yankou ok Modou Ablaye Omar waaw ñoom grand moto ok yéen a ci nawet waaw ñoo ñoo ci biir ah ñoo ne ci biir waaw ok ah boo ñoo nekk nii gars yi na def naka mu waay naka affaire ki ma njëkk a sélectionné mu ngi nii ci laa njëkk Tidiane Niang laa tudd maa ngi dëkk fii Thiandiaye mhm. lamb académie bi nag dégg naa ko moom laa bugg a toj candidat yi leen ma foofu mais léegi looy looy looy wax sa mbokku séeréer yi ma mbokku séeréer yi bo leo séeréer mais sim naa nuun mi see Tidiane gën a Thiandiaye ne académie nananum mhm. wamunu ndamta in teen a paax bo i njangeeno waaw mais Cheikh sa waa ji wóolu na boppam ah waaw waaw waaw mooy champion la kii bañ ñëwee pour sélectionner dañoo dema dem ba nga xam ne ñun ñi koy sélectionner ñu ñun ñi koy defar. dañoo dem a dem am problème mu daan ko. Eh? waaw te mu doon xale bu ndaw nekk suñu biir. kon wolu nga ko ni waaw ah, trop. kii père li ma def ci moom. non gëm naa ne bu demee moom bu jàppee champion yooyu. mais attends Lamb Académie dafa bari ay boy de. ah bisimilah. laa jógee Palmarin. waaw eh? waaw ah yeneen ruq yoo xam ne fekk nga ma fa. Ah, waaw mais kii yan critère la ci bëri. kii ni faire lépp lu bëri di def. lépp lu mbër di def. Hmm. mu ngi ci moom. mën nañoo ne bu nekkoon tey euh, machine dañuy génne ordinateur ba dañ ko def ci boppam bi. moom mi moom mi. waaw mais ok. booy à bientôt. ah. la deuxième sélection baa nga ne. Ah waaw. ah bon kii ba. waaw mu koy. Euh, euh, noo tudd. Ousmane. Ousmane naka. Euh, Sow Ousmane Sow. waaw waaw mais yow naka bu naka Lamba Académie yaa ngi koy dégg. waaw maa ngi koy dégg présenté présenté wu gars yi. man la Ousmane Sow. dëkk doon champion fii si Thiadiaye. Mhm. waaw Lamba Académie damaa bëgg a ñëw toj ko. toj ko waaw waaye mais yow sa boy li ñu bëgg a toj mbaa mën nañ ko toj. Ah, mbaa ñoo ko tabaxoon. père nee naa la xoolal. Hmm. damaa ñëw gis la booy gis booy ya ay boy yu sélectionné. kii ci yan critère nga ko kii nii bi ñu defee euh, première bi bi ñu jëlee première bi dañoo xëccaat beneen yeneen yeneen génération waaw moom moo bokk ci troisième génération bi. waaw ah, nga sélectionné waaw ma sélectionné ko. ok booy bu bien la. lu euh, euh, maninam. maninam moom non xam nga du ma wax gars yi maninam. waaw ndax bu demee. waaw xam nga dañ koy média comme dañ koy médiatiser. boo waxee maninam. bon dañuy dem a dem ba booy dañ fay xel di moytu. dafa am looy làq. waaw dañ koy xel di làq. dañ koy xaw a làq. waaw waaw mais. bu mu ñëwee maninam rek mo loolu sa mbokku séeréer yi. sama mbokku fogole seereer mino fof mo simna o kino kinni gonum foni simongolum jomne i jomne akade bi i mbombo ndet ɓisiido ndamonge meeke na meeke na nu ndamta in pour ndet ɓisiidin i eh, namongoyan goye ngara de cungyo in ino ngara to doole ɓisiidu nak pour ngar maafa fop ɓisiidin meeke na caaƴaay i voilà Ousmane Sow waaw kon à bientôt waaw merci ok waaw nañu gaay xaar foofu voilà beneen candidat baa ngi nii. ah bon kii ok. kii mooy troisième candidat bi. troisième candidat. naka waaye noo tudd yow. laa tudd. Moussa Ba. waaw mais ba bàyyi la nga présenté gars yi. maa ngi tudd Moussa Ba dëkk fii Thiaye nekk champion bu mag. xam nga ma xamul dégg nga ma maa ngi wax gars yi nag lamb académie nañ ma xaar maa ngi ñëw. dal hmm? seen ka waaye mooy Moussa mii <laughs> mais Moussa affaire bi yombul de ay eh, wax ko. donc kii champion la père. foo teg foo teg li mu wax yow. ah li mu wax ah xanaa gisoo ko dafa liggéey de. dafa liggéey. kii ci yan critère nga ko sélectionné. kii nii dañoo defoon euh, tournoi. waaw tournoi bu rëy ñu boole booy caaya yëpp parce que nee naa la njëkk ñëw man maa leen diggeel sama bopp. Mhm. mais kii nii dañoo boole booy caaya yëpp bon bi ñu defee tournoi gars yi ne tournoi bi am na ñoo xam ne daan am ñu daanu leen. Mhm. ma leen comme demee na noonu dañuy woo ñëpp mu bëree ak ñëpp. daan daan ñëpp. Ah. waaw kon wóolu nga ko di. ah benn ngoon. waaw nga def li de vingt combat. daan gaay daan gaay kooku doo ko ndaw. Ah, my boy. waaw mais xam naa comme à bientôt. ok à bientôt ok waaw. voilà Cheikhou gis nañu Cheikh Ousmane Sarr gis nañ sa boy yi. Mhm. ñëwoon fii caajaay xool leen looy tàggoo. bon maa leen di sant di leen gërëm père parce que lii moom yombul ngeen jógee Dakar ñëw au niveau caajaay xool sama boy yi nga xamante ne boobu ba tey maa leen di formé. Mhm. bañ déggee làmb académique léegi ñun amatuñ toogaay. Hmm? tout le temps ñu ngi ci ñoom bon di leen tàggat. di gis nga leen fii da nga leen a fekk ñu regroupé hmm. ñëw leen. pour commencer ñu tàggoo ñu ngi fii ah bon kenn du dem fenn dëgg la mbokk yi nii lay demee bii moo doon état bu Caajaay ginnaaw bu ñu jógee Palmarin dal si Caajaay sélectionné xale yi jël leen mbokk yi ñu nag yéen noonu lay demee dina ñëw ci gox yi gox goxaat yi ku ci bëgg bokk wax nañ la ko ñaar fukki at ak benn yées fukki at juróom-ñett muy 18 ans 21 ans bokk ci écurie maa nga nekk ci école pour mën a bokk ci lamba académie mbokk yi xaar leen ñu ñi ngi ñëw xaar leen ñu génn jeunes yi defaraat leen ba beneen yoon voilà chers téléspectateurs tey nag wan nañu leen treize ci dix-neuf candidats yi nga xam ne ñoo nar a ñëw nekk biir yéen jàng fa bëree jàng fa ngembu jàng fa bàkku jàng tamit liir ak bind donc gis ngeen candidats yi ñu jot a sélectionné léegi nag alpulaar yi ñoom ñoo des ak tamit joolaa yi ñu nar a sélectionné ñu ñëw dugg biir Lamb Academy mais li ma jot a gis dal na sama xel parce que ñoom ñëpp dañoo déterminé ku ci nekk nar a ñëw dal sa kaw moroom jaxase sa moroom kon li si des nag dimanche lañ leen koy wan incha allah d'ici très très bon week-end ak seen Télé Futurs Médias au